dara lu ciy xaar du liggéeyal ñu dëkk bi naat nit ñi am xaalis santé bi dox école bi jàng réew mi nit ñuy liggéey ñu mas am dara quoi. ñu leen liggéey lañ di xaara ah. xaaruñu dara ñoom lu liggéey bon suñu ëndee liggéey nit ñi ànd ak ñoom suñu ëndilee liggéey nag nit ñi xool nu bi mu soxla fi mu toll nii mooy gouvernement yoo xamante ni mën na taxaw ci soxla Sénégal yi ndax ñëpp xam nañ réew mi metti na metti boo xamante ni. kenn xamul fu mu jëmam non bi gouvernement bees bi que li fi jiitu yëpp daal gisuma ci njariñu askan wi moo tax bii itam du ma si am yaakaar ah yu bees amatu fi yi fi nekk yëpp màgget na ba pare xanaa kay da nga naan day indi ñoo xam ne dañ koy mën a jàppale pour mu dégg 2024 mu jëlaat réew ah man de personnellement xaalu ba si dara parce que xam naa ni mën loo bàyyi ba nga nekk à 4 ou 5 mois de échéances électorales nga naan da ngay changer da ngay def remaniement kooku ay politique la rek yoo xam ne da ngay préparer sa sa dem. mu toll bu bëggoon régler problème mu sénégalais xam nga lay def xëcc xale yi tuuti yi xale yi jox leen ay fonction responsabiliser leen bañ def benn dëgg sërxal seen kii boo xam ne par exemple da leen di ba pare wax jaar leen fii jaar noonu da leen bàyyi ñu liggéey ak seen xel parce que am nañ compétence bi.